أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنت تجين ci siira yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk jullit yi tey ci kàttanu yàlla ñu ngi fas yéene jël gazwatu uxud xare boobu nga xam ne mi ngi amee woon ci benn barab bu ñuy wax uhud uhud benn montagne la mi ngi ci biti medinatul munawwar falaame woon diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa quraysh diggante jullit yi ak yéeféer yi uhud xare la woon boo xam ne revanche la woon bu yéeféer yi jëloon ne dañuy dem Médine faagaagal jullit yi looloo ngi amoon ci weer wuñ naan shawal ci atam ñetteel ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la waa Quraysh dajaloo ne dañuy fayu ji seen defet bu rëy bi tegu woon seen kaw bi su Badr ñu booloo xam ngeen ne yéeféeri mag bañ leen gañee Badr bi ñu delloo ca mag dañoo delloo yóbbaale gàcce gu rëy yóbbaale naqar ba ñu demee jigéen ña daal di gedd góor ña benn jigéen bu tudd Hind jabaru Abu Sufyaan ndax dañoo reyoon baayam rey càmmiñam rey rakkam fameem rey nañ ci ñetti nit ca Badr bi loolu amee mu dajale jigéen yi màkk yépp ne neen na ñuy sol ay tubéy bu ñu fanaanati ak seen borom kër yi ci kaw lal dañuy yeew seeni sër ba mu dëgër fekk fayuwuñ li leen muhammad alayhi salaatu wasalaam def bi su badr bu benn jigéen dégluuti jëkkëram ca jamono yooyu ci la borom këram di Abu Sufyaan daal di dugg biir màkk biti màkk dëkk yi nga xam ne dañoo noonu woon lislaam yépp te jege leen ñoom waa Quraysh Abu Sufyaan daal di fay dugg mu dajale sangi Quraysh dajale ahbaas ya dajale jigéen ña ba ñu tolloog ñetti junni nit salaasa alaaf ñetti junni te junni yooyu ñu ngi bokk ci waa Quraysh ak seeni mbokk ak seeni àndandoo ak ahbaas ya ak jigéen ña lan moo tax Abu Sufyaan boole ci jigéen ñi mooy ngir góor ñi bañ a daw bu xare bi mettee góor gu nekk ci kanam gis sa jabar sa ginnaaw di nga rusa deltu ginnaaw noonu la tëralee xare bi moom Abu Sufyaan nee na wa kaanat haadihi al-gazwa qariban min jabali Uhud nee na xare bi dafa nekkoon ci benn barab bu jege montagne bi ñu naan Uhud yeneen bi alayhi salaatu wasalaam moo fa njëkk comme na mu njëkkee woon Badr ci aadaam bi mu tàmma def mu organiser waat jullit yi sallallahu alayhi wa sallam ñi yor flèche yi mu teg leen ci suuf ñi yor xeej yi nekk ci seen ginnaaw yeneen bi alayhi salaatu wasalaam jël mbooloo mu takku yégal leen ci kaw montagne bi ne leen yéen ñi nekk ci kaw yéenay aar ginnaawu armée bi ndax ginnaaw montagne bi kenn du fi jaar ndax yéen a ngi fi kenn du leen fi fekk si ndax ku yor fas bala mu yéeg montagne bi bala mu yéeg si ngeen fett ko mu dee kon yéen ñi ci kaw montagne bi ngalawaay yéen bu leen wàcc situation bi nu mu munta mel même buñ ñuy rey ci suuf yéen bu leen wàcc ñu daal di déggal yonent bi yéeféer yi daal di ñëw xeex bi daal di départ ca njëlbeen commencement bi wa kaana nasru fi awwalil amri lil muslimin bi xeex bi départ ay minute rek yéeféer yi commencé daw jullit ñi commencé am ndam seen kaw ñu nekkoon ci kaw montagne bi daa di séen ña nekk ci suuf di jël màng gi nga xam ne moom la yéeféeri yoroon di daw di ko sànni ñi jotoon a rey seeni fas yi ak seeni jaas yi ak bagage yi ñu indaale woon ñu commencé daw di ko bàyyi ña nekkoon ci kaw montagne bi gis ña nekkoon ci suuf di jël bagage yooyu ñoom tamit ñu ne dañoo bëgg am ci bagage yi walakin na rumaat ñooñu nga xam ne yonent bi moo leen tegoon ci kaw montagne bi fettkat yooyu lan moo leen dal mooy xaalafu amra rasulallah ñu daal di wuuteeg yonent bi alayhi salatu wassalaam ñu daal di wàcc montagne bi ndax lan ndax bëgg am ci màng googu mbirum àdduna boobu fàtte nañu ne yàllaa leen tax a jóg ab yonent lañu àndal waru leen a rëddal ba pare ñoom ñuy demee seeni xalaat ak seeni pexeek seeni xel ñu daal di juuyoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na juuyoo googu keroog jullit yi juuyoog yonent bi qallaba kaffal maarika min xazimatin nee na loolu wëlbatina xare bi daa di tax Quraysh ci njiital Xaalid ibnul Walid ñu daa di wër ndomba jullit yi Xaalid daa di wër montagne bi daa di yéegal fas yi ci kaw ñu jële jullit yi ginnaaw ndax ña nekkoon ci kaw wàcc nañ ñu daa di képp jullit yi ci digg bi dóor leen dóor yu metti ñu daa di rey Hamza rey ci saxaaba yi juróom-ñaar fukk keroog lañu rey Musab ibnu Umayr rey Hamza seytaane daa di yuuxu ca biir mbooloo ma ne leen Muhammad rey nañ ko fekk dañoo gaañ yonent bi dañ ko dóor mu daa di daanu casque bi mu soloon daa di tenc bopp bi ñu daa di damm bëñam daa di xuri óomam keroog sunu borom subhanahu wa taala wàcce na ci alquran ci suratu ala imran 60 aaya yoo xamante ne mbir mu ñàng moomu jullit ñi def wuuteeg yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da cee wàcce alquran mbokk yi njàngale bi gën a rëy bi ñuy jëlee ci darsa tey bii mooy ay jullit waruñu wuuteeg seen yonent keroog ca Uhud ba jullit ñi wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne leen taxaw leen fii ñu bañ a taxaw gis nañu lañ ca jëlee looloo topp jullit yi tey ba fii nu nekk ci àddina bi juuyag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mbugal dal nu moo tax tey julli di nekk xeet wu torox xeet wu daltu ginnaaw xeet wu ñàkk xeet wu feebar xeet wu néew doole xeet woo xamante ne ku jóg def leen lu leen neex lu tax ndax dañoo wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran moo ñu nettali yàlla ne falyahzari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim maa ngi leen di moytandikuloo wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ngeen moytu wuuteeg yonent bi ndax wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu muy jur mooy ci àdduna yàlla mbugal leen mbugal mu metti alaxira yàlla dugal leen safara loolu la wuute di jur tey mbokk yi looloo li ñu dal loolooy feebar bi gën a rëy tey bi dal julli di ci kaw suuf mooy wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey bu julli di boo leen ne yonent bi nee na dañ ciy teg kàddu boo leen ne ni la yonent bi santaane ñu teg ci baat te alxuraan waxoon nañu ne laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi alxuraan waxoon nañu ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen tey daanaka am na ci biir xeet wi ay julit yoo xamante ne dañoo def yonent bi wujj ne yonent bi nee na ñu ne diw nee na suñ ne lii la yonent bi indi ñu ne lii la diw indi lii la yonent bi daan wax ñu ne diw lii la daan wax lii la yonent bi defoon ñu ne diw lii la defoon ñu fàtte yàlla muhammad la yónni woon sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónniwul kenn ku dul moom fàtte ne yonent yàlla muhammad la yàlla waxoon ne moo ma doy képp ku ko mooy ma dugal ko safara wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam képp ku mooy yàlla mooy yonent bi yàlla nee na ma dugal safara waaye dars bi gën a rëy mbokk yi bi ñuy jëlee ci uhud mooy keroog ba ñu wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla tàggat julli di yéeféer yi seen kaw julli di yéeféer yi duma leen duma yu méttee méttee métti ñu rey musab rey hamza gaañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bopp ba casque bi mu soloon ci bopp bi keroog dafa tañ ci bopp bi ba biñ koy dindi ki ko doon dindi ñaari bëñam ca la dañ ndax bi màttee première màtt bi xëcc benn bëñ bi daa dañ mu xëccaat beneen bëñ bi dañ mujj gi gaay yi di ko reetaane bëñ boobu bëñ yooyu dañ yonent bi ñaanal ko ci mujj nekk sàkkara yàlla boo xam ne fu mu ko musa siiñ rek ñépp siiñe te daan ndamoo saxaaba yi naan leen sama ñaari bëñ yi dañoo deñ ci yoonu yàlla ñu gaañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam damm bëñam xuri ay oomam keroog sunu borom subhanahu wa taala wàcce na 60 aaya ci saara suratu ala imran ay yooyu sunu borom subhanahu wa taala naan yàlla wa is gadawta min ahlik tubawi'u lmuminin maqaida lilqital wallahu samiun alim kon doomu ndey yi mbokki julit yi war ñu jàng dars yi rek mu ñuy romb waaye nañu xam ne ay njàngale la yoo xamante ne yuñ ci war a génne ak ay géndeeku ak ay mbir yu ñu war a teg sunu baaraam xam ne lu ñu yonent bi wax lu ñu yàlla wax mooy dëgg lépp lu ñu yàlla wàcceel yonent bi jàngal ñu ko mooy dëgg yonent bi du ku ñuy moy ndigalam yonent bi du kuy wax ñuy ciy dengi dengi iza qaala allah wa rasulahu fa bil amri fa bil ayni wa ras su yàlla ak yonent waxee jëfe rek keroog ba yonent bi saa salaam daal di tàqalee soldaar yi mu ne ñii nañ taxaw fii ñii nañ taxaw fii ñii nañ taxaw fii kenn ci yéen bu mu bàyyeekoo fi ma ko teg ña nekk ci kaw montagne ba ba ñu wàccee keroog duma yu metti la leen yéeféer yi duma keroog ñoom sax mënatuñ ko woon muñ ba ñu déggee Quraysh daal di yuuxu daal ne ala hubal hubal gañe na hubal a nekk ci kaw hubal mooy xërëmu màkka ba yonent bi saa sallam ne du ngeen ko tontu Omar daal di koy yuuxu ne ko bu dee kuy nekk ci kaw yàlla rekk la ñun ñi ngeen rey ci ñun àjjana lañ jëm yéen ñiy dee ci yéen safara lañ jëm ñun am nañ kilifa yéen amu leen kilifa ñun yàlla mooy suñu kilifa ak yonent bi yéen nag amu leen benn kilifa yéen yéeféer yi kon gis ngeen keroog naqar bu rëy la julli di delloo medinatul munawwar yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tiimee Hamza fi ñu ko rey daggate ay cëram lu xati bët yi dagg nopp yi dagg bakkan bi dagg làmmiñ bi xar dënn bi dindi xol bi yonent ba mu tiimee Hamza ñu def ko noonu mu waat ci yàlla ne dinaa jàpp juróom-ñaar fukki yéeféer def leen nii yàlla daal di ko koy tere su ko defee doomu ndey yi mbokk yi ci gàttal ci tënk lii mooy tey sunu dars ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp yàlla jëriñ ñu jëriñ leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.